salaamaaleykum sama gars yi coowal déclaration de politique général dafa am sew-sew ndax le 12 la assemblée nationale bi war a tas ci ni ko Ousmane Sonko yëglee waaye député Benno Bokk Yaakaar yi ñoom góor góorgóorlu nañ ba fexe ba le 11 moom daf ko fa war a fekk ngir mu def déclaration de politique générale. ah ah Ayib Daffé Abass Sall dal ne takkandeeru Sonko sax duñ ko gis Mansour Faye Abdoul Mbow dañ mi mais Sonko lan lay ragal mais de quoi a pour ñëw def déclaration de politique générale ah ok ñaari jàmbar Barthélemy Toye Dia Toye Dias ci liggéey bi muy def ci benn projet bu tudd euh, dakaaru bi ñu bokk def na bilan à mi parcours Fadilou Keita bu CDC it mu ngi def jaloore yooyu macha allah rek ci waawoon mer nañu ba futt ci doxalinu Cheikh Omar Diagne ndax démb ab toñkat la woon tey nguur ko jël jox ko doole joo xam ne mën naa wax boole kook def waaw Touba it am na pétition bu ñu lancé ak plainte buñ def ci ndoddal Cheikh Oumar Diagne waaw euh, dawalkati Jakarta yi ca Tiwaawoon ñoom ñoo doon jaamaarloog takk der yi ndax euh, maire ba jub si dafa ni dafa am loo xam ne ñoom Jakarta yi war nañ koo fay ci jamonoy gàmm gi waaye mu indi coow rek lu metti rek euh, Cheikh Tidiane Dieye ba mu demee Tiwaawoon dalal na seenu xel ci ndox ne ni mu war amee ak ni ñu leen di taxawoo noonu it la ko defee foofa ca Kawlax walaay ndeysaan euh, Sénégal ak Burkina tey ci aljuma ji ah Burkina mii gaa yi xam football de nee nañ ah dana jafe li de waaye senegal moom amul droit erreur musiba naaru laay fii ci géejewaay benn borom boutique lan fekk mu tëj ab xale bu jigéen bu àndul ak xelam dof di ko di ko sàkku ba koñ bi fekk ko fa musiba la ay waay